ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar itam ngeen gi ziar mel na ni ñu ngi ci weer wu sell di weer woo xam ni bokk na ci weer yi ëpp solo ci weer yi muy weeru tabaski mu am lool nag suñ borom subhanahu wa taala ginnaaw bi nga xamee ni Ibrahima suñ borom dogal na Seydina Ibrahim suñ borom dogal na mboolem lum lum jur rek mu di ab yonente loolu ndimbalul suñ borom la ci moom nga xam ni moo juróon Ismaayil ma nga xam ni moom lañ doon waaja rendi ginnaaw bi ñu jot ndigalul suñ borom Jibril wàcc am xar xar moom moo wuutu la ba keroog rendiwuñ ko ci ndimbalul suñ borom subhanahu wa taala nga xam ni day mel ni ba muy ñëw Jibril moo ko bokk indi ko wàcce ko ci kaw suuf xar nag chiffre bi rek mi ngi lay jox trois cent ndax xaf cent la ra deux cent la muy lool nag dafa yor chiffre bi ñuy wax asamadu muy yàlla mi nga xam ni moom la ñuy jublu ci aajo muy lu am am solo loo xam ni mel na ni nit ki aajo ju mën a am rek mën naa bañ génn loolu ñu naan xar ndax waxuma la dara waaye jël ko nii saraxe ko rek mën na laa jële fi nga newoon ci lu gaaw yóbbu la feneen ndax moom ki mu remplacé dadul nitu kese buñ nee dadul nitu kase mooy koo xam ni am na cër bu rëy rëy diggam ak boroomam kon di ko saraxe nii rek dana la jox lu rëy rëy xar nag mag ñi dañoo fonkoon loolu ñu naan xaaf mooy buñ koy rendi ñu fexe ba ñiy jàpp tànk yi ñiy jàpp bopp bi ñu rendi ko rendi ak rey nag bokkuñ ndax rendi nopp yi ndax xar xarum tabaski sart la ci nopp bi na mat sëkk te it bu mu dagg xar ma nga xam ni nopp bi mat na nag nopp bi boo ko wàccee fam yem foofu lañuy ñuy rendee xarum tabaski waaye rendi ak rey bokkuñ ginnaaw ba itam sopp nañ ki nga xam ni moo rendi ba noppi mu téye bopp bi bàyyi tànk yi féqu ba ba muy sedd xar nag mel na ni buñ ko feesee ba noppi koñ yooyu muy baaxoo am fukki koñ la fukki koñ yooyu itam am na lool gone yi di defe ndënd muy bant yu dëgër dëgër mag ñi daanañu wut bantub daqaar ak bantub nepp nepp daqaar bi daqaar bi bantub daqaar bi juróomi banti daqaar lañ daa wut ak juróomi banti nepp nepp juróomi bant daqaar dañ koy jënde kaaf haya ayn chat zikru kaaf haya rek dama juum ayn chat nga yem kaaf haya ayn chat foofu rek ngay yem moom ngay jënde daqaar euh, juróomi banti daqaar yi juróomi banti neb neb ni juróomi banti yi itam yaa ngi koy jënde xeemim ayn siin qaaf loolu nga koy jënde nga xam ni boo noppee fukk fukki bant yooyu nga xam ne der bi dina am fukki koñ fukki yooyu ci koy tàllale ba mu tàlli ñareet ginnaaw bi itam der boobu noonu nga daal jël fi nga xam ni moom moom mooy fi nga xam ni mooy fi tooy nga jël karaw gi dëpp ko ci suuf jël fi tooy daal di ciy def nepp nepp sungufu nepp nepp ak itam dóom boo ko jëlee nga lem ko ba muy juróom-ñaari fan mbokk yi loolu suñ borom dogal na nit aajo jum mën a am lu mu rëy rëy bu xamee yoon wa bu ca yendoo du fanaan ci der boobu noonu bu soobee suñ boroom der boobu itam mbokk yi suuf soosu mu tegee boo ko tibbee boole kook boole kook xobi fu xobi fuddan xobi xobi xobi xobi gura boog boole kook parfon boole kook bërëwër ngil mooy suuf soosu mu tëddoon moom xarum tabaski mi nga boole kook xobi guro boole kook bërëwër ngil ak parfon loolu jigéen joo ko jox du mat ñeent fukki guddi te du am boroom kër loolu muy lu yéeme yéeme ba tey ci mbirum xarum tabaski ci dogali sun borom subhanahu wa taala ba tey itam xar mi sibirit mi mooy foofu nga xam ni mbaq gi fi lay ne loolu day lu ama am solo day lool doomu aadama bi ñu bëree bëri xamuñu njariñam ndax ëpp nay sànni noonu rek te loo xam ne at ba at ba at lay am mat nay fonk loolu boo ko jëlee boole ci sungu sungu fusxaay xëpp ko ci jël ko weer ko ba mu wow loolu ku ko ku ko ku ko suuroo tëju liggéey njabar ba ci buntu buntu ubbeeku sax suñu borom dana la ci dimbali ba mën ngay bañ jàmbataat dara muy lu ama am solo loo xam ni mi ngi ci mu ngi ci mbàq googu nga xam ni ñu baree bari sax ñu ko xam dëgg foo ko fekk rek daanaka dañ koy manqué la ndax loolu lim mën a lim mën a lim mën a faj ak lim mën a jariñ dafa bari lool moom moom moom moom moom boobu. ba tey jëmmi xar xarum tabaski res woowu bu ñu fexee ba laalul suuf nga bind ci baatub mudd xamataan yi loolu waxuma la ku ca lekk sax waaye koo ko yéenewaale suñu borom mën naa dogal diirub dundam du ci tàbbi ci kaso ndax àdduna doomu aadama bi ak jub daa taxut a mucc suñ borom ndimbalul suñ borom la doomu aadama bi mën a am mën a mucc jub daa taxut mucc ndimbal loolu nag doomu aadama bi moo koy sabablu ba mën a mucc waaye res woowu ci bind baatu mu du xamataan yi li des ci dundam du tàbbi ko su mukk ba tey xarum ki loolu ñuy wax boli gi nga xam ni day mel ni saaru raakool képp koo xam ni am na ko te laalul suuf lépp loo xam ni mi ngi koy metti lu mu mën a doon ci biir yaramam boo ko jaaralee ci raakool boobu ndox mi naan ko sun borom subhanahu wa taala dana dogal loolu moom dootu ko jàmbat leneen la ñuy wax ba tey képp koo xam ni jël nga béjjën boobu bi nga ko jëlee nga bind ci xabasa wa tawalla an jaahul ahma boo ko jëlee boo ci bindee xabasa wa tawalla an jaahul ahma nga def ko ci ak gétt suñ borom subhanahu wa taala dana dogal foofa kenn du fa sàcc donte ci àll bi la ne ba tey moom xarum tabaski buñ koy waaja a reen di ndox moom ñu koy jox ngir mu naan desit woowu ku ko jël nga denc ko jigéen ju dem ba mat te mënta am doom bu koy naan di am doom ci coobare yi sun borom subhanahu wa taala loolu ñuy wax itam loxo bu bënn bu jëlee fuddan boole kook dereeti xarum tabaski googu def ko ci loxoom lu mat fanweeri minit <laughs> loolu moom bu soobee suñu borom doomu aadama jooju itam doodu ko doodu ko jàmbat. loolu ñuy wax waxtaan wi itam képp koo xam ni jël nga ko toj ko ci sa tànk dëgg ko ci dëgg ko ci suuf li des ci sa dund moom kenn du la mën a liggéey ba jàpp la kenn ku lay mën a liggéey ba jàpp la du mën a am. képp koo xam ni itam dafa dafa dafa jël dafa jël xar mi jël der bi der bi noonu nga xam ni defu ci dara bu fekkee yooyu yëpp da ko fàtte waaye dem na ba fàtt ba fàttaliku der ba te der ba jëloon na ko mu denc ko der boobu boo ko jëlee boo ci jàngee yaasin ñetti yoon tifli ko ci der bi daal di koy raxasem ndox ndox moom itam loo ci loo ci ñaan suñu borom subhanahu wa taala daan la ko defal boo ko sangoo te te da ko am képp koo xam ni itam nag suñu borom subhanahu wa taala dafa dogal mu am loo xam ni da koo bëgg a aaroo moo xam alalam la loo xam ni bokkut loo xam ni toujours day taqoog moom waaye day beñ du ko rot du ko wadd te du ko fàtte fenn day fexe ba mu am ci jën bu càmmoñ bi ab fellit bu ko amee moom it da ciy jàng laa hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim li ñaar fukk ak benn moom it ku ko def suñu borom subhanahu wa taala dana dogal loolu noonu muy jàmm loolu noonu mu daa baaxoo di jàmbat dootu ko jàmbat ci coobare yi suñu borom subhanahu wa taala si birit moomu nag mat naa yaatal lool ndax képp koo xam ni dañ laa njabar wala muy kortu wala muy feebar xam-xam bu ñuul wala bu weex wala nga bëgg ubbeeku loolu boo ko defee suñu borom subhanahu wa taala dana dogal euh, dootoo ko jàmbat lii des ci sa dund kon mel na ni loolu loo ama am solo la ci yóbbalub xarum tabaski ndax loolu loo xam ni at ba at lay am te lépp di njariñ ndax waxoon nañ léegi ni kim remplacé ci boppam moom xar dëdul ko ndaw ndax bi nga xamee ni sun borom subhanahu wa la dogal na dogalam boobu dañuy ñuy waaj a rendi Ismaïla teew di itam waajuram nangu woon na waajuram bu jigéen nangu woon na moom itam nangu woon na kon loolu day lu rëy rëy bu dul dara itam doomu aadama yi war nañoo xam ni suñu borom def na ci cër bu rëy rëy wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin